xaaj bu jëkk bi ci juróomi xaaj yi yàlla wàcce na fukki ndigal yi ak yoonu njégalu bàkkaar tey dinañu waxtaan ci ni yàlla aaree waa Israyil ci màndig ma bi ñuy dem ca réewu ndigg ma waa Israyil wéy di dox ca màndig ma ca kanam tuuti waa Israyil tàmbaliwaat di xultu ndaxte lekk gañu yoroon ak ndox ma dafa jeexoon yàlla wàcceel leen bés bu nekk lu ñuy wax mànn muy lu mel ni mburu ñu koy foree ci suuf bés bu nekk ba mu des ci bésub noflaay bi bu ñu nee ëllëg la bésub noflaay bi ñu for mànn mu leen yóbbu ñaari fan bésub noflaay bi di juróom ñaareelu fan wi ñu noppalu ci te lekk li ñu dencoon bu waa Israyil maraan yàlla génne leen ndox ci aw doj yàlla yóbbu waa Israyil ba tund Sinayi yàlla wàcc ci kaw tund sinay noonu rekk mu xiin di dënu ak di melax ab lit di jolli yàlla dig leen ne dina ànd ak ñoom dina leen sàmm suñu toppee ay ndigalam suñu toppul ay ndigalam kon dina leen wàcc te dees na leen mbugal gannaaw loolu yàlla wax musa mu yéeg ci kaw tund wi yàlla jox musa ñaari alluway doj yu ñu bind fukki ndigal yi musa toog ci kaw tund wi ñeen fukki fan léegi ma laaj leen benn lan la yàlla def bi nit ñi xultoo ci màndin ma ne dañu xiif te dañu mar yàlla may na leen lekk ak ndox yàlla dafa leen wàcceel mànn mu jóge kaw asamaan yàlla def na ndox génne ci aw xeer